mangi tuddu Aïssatou Ndiaye plus connue sous le nom de mère Aïda may candidate sur la liste des suppléants deuxième sur la liste des suppléants de passifs. ma ñëw nak accomplir sama devoir civique pour avoir accompli un devoir ndax tout bon citoyen war nga bu élection jotee nga ñëw voter comme ñëw na nak voter def naa sama devoir civique kon sentiment de fierté là, ça passe bien dans le calme comme l'avait demandé le président de la République et dans la paix ñëw nañ voté ci jàmm fekk nañ fi jàmm voté nañ ci jàmm ñu ngi fas yéene ñibbi ci jàmm nag xaar résultat comme d'habitude le moral est bon sant yàlla di am yakar te ñaan yalla yakar yalla bu yakar tass di ñaan résultat yi niñ ko escompté niñ ko bëggé yalla ñu yalla dimbalé ñu amé ko euh am député yi nga xamé né dal dinañu doy sëkk une majorité écrasante pour me permettre à notre président de la République de faire ce qu'il a promis aux Sénégalais muy Sénégal, Natangé, Sénégal bu soppeeku sunu référentiel 2050, mille cinquante bi 2050, ñu commençons à ko mettre en branle. Sénégal ben bopp la kenn nous ko xaar ñaar euh, maa ngi woo sénégalais yëpp ñu nekk ci jàmm nekk ci salaam rawatina waa nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokk. ñu bokk ndey bokk baay ñun ñëpp bokk bëgg-bëgg dañu bokk yoon yi ñuy jaar rek mais ñun ñëpp bokk bëgg-bëgg kenn ku ci ne dans ton esprit defar defar Sénégal moo la moo jox soxal rawatina defar Médina gi ñu bokk moom moo la soxal mais dañu bokkul yoon mais kon bokkuñu yoon nag te ñoo bokk fi ñu jëm ku nekk na dox ndànk rek ba yegg fa jëm mu ba indi bañ a indi benn problème problème baaxul ndaxte lii bu passé suba dañuy dajewaat rek jàkkaarloo te nous sommes une famille une famille ne doit pas être divisible une famille est indivisible nous bokk ne ñoo bokk faire des ñu Nous jàppale. waaye may ñaan nag sénégalais yi nous voté vote voté Diomaye le président Diomaye qui voté le voté le président Ousmane Sonko ku ne sa voter. ngay voté ndax Sénégal nous ko bokk te vous bi defar bi ñun ñëpp la war ñun ñëpp ñoo bokk war a bokk defar Sénégal comme ñun ñoom ñoo war a defar euh, Sénégal ñëpp a a génn ku nekk defar devoir cigé moom civique kam léegi 18h jot ñu ngi ñaan yàlla daal bu nit ñi añee ñëw mm, sant ñu ngi sant yàlla nag ndax fekk nañ fi pourcentage bu dal suñu xel waaye bëgg nañ mu yokk